seeni mbokk ak seeni xarit dañoo tàmm lool di leen yónnee xaalis application Tab Tab Send mooy solution bi yéen ñi nekk ci Europe bi moo xam France Italie Espagne Belgique Allemagne ba sax Pays-Bas frais d'envoi 2 euros dong la seen ay mbokk mën jot ci xaalis bi ci seen calpe Orange Money International wala seen compte Wizall sans aucun frais de retrait. te li ci gën a neex mooy yéen ñi nekk États-Unis Canada ak Royaume-Uni tap tap seen daf leen indil mbakkuus waaw waaw ak lu ngeen mënti yónnee du ngeen fay benn frais zéro frais d'envoi zéro frais de retrait ak tap tap seen da ngay dund lu la neex. ami internetu Dakar Buzz nuyu naa leen bu baax a baax di am mbégte lool di janoot ak yéen comme niñ koy defee saa su ne rek si samay biir interview mais am mbégte lool surtout nag mu nekk début de semaine kan bi gannaaw bu mu jàllee Sénégal jël li nga xamante ne mooy coupe bi sénégalais yu bëri nag ku nekk di manifester li nga xamante ne mooy mbégteem à travers les réseaux sociaux ci noonu nag ñu gis ay nataalu xale yu rafet bu ci gën a fës nag moo nekk bu ay Fade mi nga xamante ne fédération bi ci boppam moom moo ko doon wërlu ngir rek gis ko ba tax na moom mu daal di ñëw fi nga xamante ne mooy Sénégal ànd fi ak papam ci noonu également ñu gis benn photo également benn nataalu xale bu góor bu ñu xale bu ndaw la bu ñu fësal également ci réseaux sociaux yi mais par contre mu jur lenn li nga xamante ne mooy polémique polémique boobu nag moo doon li nga xamante ne neexut kii di waajuru xale bu góor boobu noonu ñuy woowee Pape Malick Seye ci noonu nag tey sama plateau may recevoir ki nga xamante ne mooy Penda Diouf di yaayu Pape Malick Seye mais également di recevoir également Mouhamed mi nga xamante ne tey nee na moom moo doon jël nataalu xale boobu noonu bu ko defee ñu jéem a rek exprimer wu li nga xamante ne moom moo leen métti Penda dama lay bàyyi rek nga daal di nuyoo présenté wu ñi nga xamante ne ñooy internetu à Dakar Buzz. salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen waa Dakar Buzz yëpp di leen jaajëfal si recevoir bi ngeen ma recevoir fii mm-hmm. surtout yow Dieynaba maa ngi lay nuyu. Mm-hmm. di rafetlu lii wax dëgg yàlla. Mm-hmm, d'accord parce que ba ma la woowee dis la sama naqar tegoo ci baat danga mm-hmm. ñoo gide ba ñu agsi fii. Mm-hmm. daw ay kilomètres ba agsi maa ngi rafetlu loolu. alors ma bàyyi Mouhamed également mu nuyoo laata rek ñuy wéy ci waxtaan bi. je me nomme Mohamed Seye. Mhm. Euh, je suis le frère de Pape Malick. Pape Malick. d' accord man euh, xam naa dinañ ci revenir aat après bu bu Penda waxee ba pare incha allah alors euh, Penda yow da nga jógee ba Saint-Louis. Mhm. ñëw fii nii est ce que mbir mii rek moo la fi indi wala dafa am leneen également lu la fi indi. waaw dafa am leneen lu ma fi indi. Mhm. parce que comme ni nga ko waxee kaan bi dafa jot. ñëpp di bégee. lii di suñu sunu kii équipe nationale. Mm-hmm. mu doon football. ci noonu. Mm-hmm. moom Mouhamed Sey mi daal di sama doom dugal ko ci compte Instagram am mu jur ay polémique comme ni nga ko waxee. Mm-hmm. mu naqadi ma lool nag comme en tant que yaay. te ku jur ku ne boo gisee nii may waxee xam ne am na lu ma naqadi. parce que ku jur yaram. waaw affaire yi mi ngi démarré ci demi-finale ba. demi-finale ba ñu nag Burkina Faso man mii di yaayu Pape Malick Seye mbaa njëkk a déguisé wu. Mm-hmm. vert jaune rouge ñawal ko sama bopp ndaxte man coiffeuse laa. Mm-hmm. mais ci biir coiffure boobu may def dama ci rax encore couture embauché sama tailleur mu may ñawal. léegi samedi bi. Mm-hmm. la 5 février maa ko vocal vocal yaa ngi nii sama téléphone sama tailleur bi ndax dimanche du xëy si les dimanches du xëy si ma vocal ka ni ko caaminu jàmbur dimbali ma rek ngir yàlla xam naa ne de suba dimanche la mais dimbali ma nga ñëw uniquement pour ñawalal ma Pape Malick say yére ndaxte man am naa gis nga sama yére bi ma naan la dama kaa déguisé wu si demi final bi ñu nag Burkina Faso. Ah maa ngi ko amoon ci 2019 ba final ba. te ñu dugaloon ñu bii bu bizarre boobu. Mm-hmm. ñu nag Algérie ñu nag Algérie si laa ko mm-hmm. ñawlu woon. xoola ba mu am ay quinze minutes yooyu ma découragé dem si mu yére ba lem denc. Mm-hmm. yére boobu moom laa génneewaat ci demi final bi. bi ma ko génnee sama sœur bi ma nekkal mi ngi may tooñ naan bu ñu um de ndax ma nga ko solee ñu nag Algérie dan ñoo gañe ma naan ko waxuma la dara sax xeeñ denc gi mu xeeñ denc yëkkati ka weex ka si kaw mhm. teg ka sama kaw lal ba Sénégal am 2-0 ma daw ne léegi de xanaa war naa daw ma maquillage te sol sama yëre mhm. ndax ñu nag Ismaïla Sarr tout près seen kër ak sunu kër d'habitude waa ñoo dend kër mhm. pour te dire Ismaïla Sarr moomu sunu biir kër ñun la yoroo sama rakku jëkkër sama rakku jëkkër lu leer laay wax moo ko jàngal ñaw fa la doon jànge ñaw ñun suñu biir kër ñoom mu Mouhamed Sey nii la daan pëti kawanteel ci buntu kër gi mu nekk xale bu tuuti mm-hmm. léegi ñun bu ñu dugalee bu ñu gañee dañuy dem seen buntu kër jubilé ci léegi bi mu nee ma bu ko soldé di ñu um ndaxte nii nga ko sole woon en mille 2019 ñu gañe ñu ma lal ko noonu si kii bi di karee naan ko dafa xeeñ deñ dama koy tàngal mu tàng ma parfum ko bu ñu gañee ma jubilé ci mu naan ma mbete dangaa xam ba xam dañuy gañe ma ni ko dundee yaakaar mm-hmm. ñu dugal 2-0 ma dugg sama ne commencé maquillage sol yére bi bi ma solee yére bi balaa may génn noonu di musóoru rek dégg kii dugalaat na benn bi mhm. Burkina Faso li ngay wax nii demi finale bi la voilà bi la woon. Mhm. ma daw ni leen yéen lu ma dégg ñii dañoo dugal ñu ni ma waaw ma taxaw daan ni leen musóoru naa waaye du ma sologum yére bi ni ma taxawee. peu de temps rek ñee dugalaat mu nekk 3-1. Mhm. ma daw gi sama sol mu pare ñu dem jubilé gis nga jour boobu ñuy jubilé ji buntu ko ñoom Ismaël Sarr man kenn nit maa sol vert jaune rouge boobu. man benn nit maa ko sol xale yu góor yi naan ma maman bëgg nañ ci yow kontaan nañ ci yow Pape Malick mii jour boobu tubay rek laa solal ak jiin. Mhm. ñu dem juble ji ñun ñëpp pare ñëw bége reer sunu reer. Mhm. final bi ñëw. ma génneewaat yére ba teg ko ci kawlal bi daal ni ku ma ci am nii laa ko tege woon ci kawlal bi mu jig ñu si hmm. demi final bi nii laa koy tegewaat ci kawlal bi hmm. ndax ñu gañewaat ma teg ko fa ba quatre-vingt-dix minutes yi mat dugaluñu ma découragé moom mii Pape Malick Seye hmm. fekk si jour boobu ma vocal sama tailleur bi ni ka na ñëw ñawal ka mu ñëw à onze heures dimanche bi 6 février ñawal ko ñaw jour final bi jour bi bi mu ko ñawalee sama benn tata dox ba yegg si fa daani ma ay yow lii rafet na di du si ñawal sama doomu moom dafa am ku muy liggéeyal si taba vert mhm. du si ñawal sama doomu patron du ma cité turam ni man ni man na si ñawal doomu patronam bi daal daal ma ni ko jëndal popeline da laa jënd mu ne ma bu nekk ñaata nga jënd ma ni ko bu nekk mètre ak genn wàll laa jënd mais da koo ëpp sax ndax des na fa yow mën nga jënd bu nekk mètre rek comme ñoom ñoo seexandoo mhm. mu yónneel kooku encore bi mu lee kooku am na beneen xale bu fa dëkk sama kër tata bi ma ni ka kooku aussi xaaral ma jëndal ka ndax ñaaw na nga yóbbul kenn ka di bàyyi kenn ki ma jëndal ka mu ñaw xaa ñaw naa si ñetti déguisement yu xale mm-hmm. léegi sama tailleur bi daal di indi ñaw bi ay 13h jox ma ka moom yi yaay dama koy sol dama koy sol dama koy sol ma ni ka match bi commencé gul mu ne am yaay kañ la kañ la ñuy dem stade pour moom stade sax la waaw parce que d'habitude suñu quartier ñun dama ko yàgg a ñawal ay déguisement suñu quartier buy football équipe bu Santos Medina course dama koy ñawal mu dem supporter ji si stade ma wàdd wàdd boobu. Mm-hmm. vidéo yaa ngi nii. rouge blanc la la ñuy déguisé woo ñun. équipe boobu noonu. alors si je comprends bien. Mm-hmm. moom euh, déguisement boobu noonu mm-hmm. jour finale bi la ko sol. jour final bi la ko sol. kañ la photo wu. xam nga kañ la photo wu. 17h47 ba mu wàccee alxuraan. 14h la bëggoon sol ñaw bi. yaay solal ma yaay solal ma ma naxanteeg moom ni ko yow da ngaa war a jàngi alxuraan. moom si boppam fekk defal nañ ko tatouage fii euh, frère am yi. Mm-hmm. ñaar mu ni ma sunu ustaas su ma demee daf may dàq ma ni ko du la dàq tey Sénégal mooy final ñëpp ay bége. mu ni ma lii ma def sama lex bee tax su ma demee daf may daaw ko bañ nga jàngi rek jàngil ba wàcc mm-hmm. soo wàccee nga ñëw sol sa yére mu wàcc rek daw si yaay ñëw naa solal ma ma solal ko sama néeg bi mu soloo ba génn mm-hmm. frère am bi Mouhamed Seye ni ko i waay kañ dem si kaw ma photo la xam nga ñoom d'habitude maa ngi naan yéen lu ngeen xewleeg photo wu si ay kaw doo ko photo wu fii suuf mu ne ma iPhone naaj si naaj la gën a kiiwee. Mm-hmm. mu yóbbu ko ci kaw terrasse ba. photo ko fa ak yeneen fii yu mu photo. Mm-hmm. si même heure boobu noonu ma leen di wax nii. ñu daal di wàcc bi nu wàccee toog ci saal ba di seetaan match bi ma bañ mu perturbé ma ma jox ko sama téléphone bii. Mm-hmm. muy manipuler si roq canapé ba. ba match bi jeex 90 minutes yi bi ma découragé génn toog ci véranda bi. ci cour bi noonu sama digg kër moom mii mu ñëw ni ma yaay laaseel ma sama daal yi xanaa duñ dem kër Ismaïla Sarr. Mm. ma ne ko ankay daañu dem kër Ismaïla Sarr kay te boobu tiro bii bi sax commencé gul. comme xale la ma ne ko daañu dem kër Ismaïla saar kay mu ni ma laaseel ma samay daal ndax bu may daw mu bañ a rocceeku. ma laaseel ko ay dàllam toog ci digg kër ga. dégg xale yi bu ñu tàccoo ba Bouna Sarr rate ñu naan oh, affaire yooyu ñee tamit rate waat encore ma dégg ñu naan wi sama ndey Sadio dugalal boo dugalee rek ñu gañe mm. gis nga xola wuy sama ndey Sadio dugale boo dugalee rek ñu gañe boobu ak ñoom ni nu yuuxoo génn ni ma nee dara daanu benn la dama xëm ñoom 15 minutes xëpp nañ ma ko ndox ak di ma pes mënuñu jubilé ji kër Ismaïla Sarr ba ma yeewu jóg ñu ne ama tey suñu juble ji yépp yàq nga ka man leen du teye dañuy dem nan leen dem xola daal di dugg sama néeg solaat sama déguisement ba ma leen waxoon fekk match bi li muy daw yépp soluma ko robb laa sol mm-hmm. sol ka musóoru jàpp sama loxo doom ba ma génnee fekk naa taliba saturé mënuma jote kër Ismaïla Sarr moom mi ci buntu taliba la am ñu ko doon photo ak di ko sinab si déguisement bi ci yére boobu ci bii même yére bi d'accord euh, tey jii mën naa jàpp ne li nga xamante ne moom moo jaaxal nit yi parce que dañu gis photo bi nga xamante ne Aïcha def na ko mhm. Aïcha Fade euh, def na ko ñëpp di ko publier ba ci Twitter Instagram ba tey jii ci loolu noonu la fédération bi nga xamante ne moom la sukkandikoo pour woo Aïcha mu ñëw tey jii ñu bëri dañu jàpp ne peut loolu toppandoo boobu noonu moo waral yéen également ngeen publier photo ki nga xamante ne mooy Pape Malick Seye pour leneen parce que gis neen ñu bëri ba ci euh, xësaa sax def na publication bi di wax ne photo bii nii euh, loxo yaay ji ak génn loolu nag moo mooy li ma gën a naqadi mhm. parce que photo bi 17 heures 47 est-ce que match Sénégal commencé na non bi 19 heures la ba mu koy defloo geste boobu est-ce que Aïcha Fadé apparaître na boobu gisaguñu ay Fadé yàlla xam na ko yàllaa xam lu tax mu nuroole geste yooyu 17h47 mi ngi nii léegi ba ma gisee publication Kheucha moo ma gën a metti parce que Kheucha moom ñépp a ko bëgg warut a kenn parce que ñi ko bëgg ñi di ko woo ci télé bi naan ko Kheucha noonu laa la bëggee ñi toog ci biir kër yi bëgg ka te déggantewul ak ñoom ñoo ko ëpp muy benn si man ak sama waa kër Kheucha ndar la dëkk moom nee na ndar la dëkk lu mu gàtt gàtt gàtt dégg naa ko ci benn émission mu naan hôpital wetu hôpital Ousmane Ngom la dëkk lu gàtt gàtt gàtt lu mu gàtt dégg dégg dégg war na dégg entreprise des frères jumeaux atelier seex yi ndar ak ndar ku jógee ba kilikoro boo wàccee ne atelier seex yi laa jëm dañ lay indi kii papaam namul daray neexal namul daray xaalis ñaq jëriñu la xam kon ñoom bu ñu taxawee naan loxo ndey ji génn si ndax damaa bëgg fédération bi woo maag damaa bëgg état bi neexal maag loolu ay commentaire yooyu laa gis dama tontu tontu tontu am ñu may jëlaat suuf naan ma mère bul tontu ñii. da nga kon ki doon pend boobu ma doon gis tur boobu noonu ma doon gis yow la woon. man nii la woon maa doon tontu commentaire yi. ni leen kii papaam namul ay millions xiiful marul raflewul bañ naka ba élèves yi bi ñuy xëy di grève moom mi ngi xëy di jàng ndax privé lay jànge moom xale bu tuuti bi am 4 ans. toog te jàngiwul lu dul lendemain final bi la toog jàngiwul. ndaxte dafa am ñuy bind seen commentaire aussi naan ka demal jàngi moo gën sa yaay di la ute xaalis utewu ma ko xaalis xëcca nag moom a gën a metti si publication yëpp xëcca li mu souligné moom a si gën a metti parce que moom en tant que mu ne ndar la dëkk sama doom dëkk ndar may bégal sama doom dara taxuma woon jóg lu dul supporter sama réew conseil ma local nag dem jënd sama tissu mais tamit est-ce nekkul bu muy publier loolu peut-être caaxaan la ko jàppee woon bëggoon ci foo noonu rek parce que ku xam xësa xam ne également def ruubekat la. même aussi gis naa kenn ku TikTok sama doom mi ngi tudd Bachir TikToker la. Mhm. xësa mi ngi jëlaat image boobu aussi di ci mbalagaat. ci suuf moom lan la ci wax TikToker boobu noonu. moom lan la ci wax dafa ni lan euh, dafa ne xale bi yaayam mooy naan di te dëgg. daka doon wut dafa gis ay Fade génn ñu may ko ay million moom it mu xëy suba wuti tiseem ñawal ka publier kan ndax bëgg ay neexal. Ah, naan ko waxuma la dara muus ŋaangam bii nga xamante ni nga comme ŋaangu muus mu naan reeñu senjeñ kii aussi euh, kii euh, Ibou Ibou Soulaar. waaw Ibou également gis naa benn vidéo. bu mu def moom di ci wax. Ibou Soulaar aussi. Hmm. moom it dafa jurul dafa xëy na dafa xamul lan mooy bonooru doom. bu ndax ku jur yaram ku jur doo wax si xale bu tuuti yenn wax yi moom it waxam lu ma metti la ba ci kanamu yàlla naan xale bi dañoo génnee ay chafade ñu may ka ay million yaayam bàyyi ba ca suba sax dem marché ku gis tiis bi xam ne bees la waa tiis bu nu jënd si bis bi ñu solo ko xale si bis bi du du nekk bees xoolal façon bu nekk dégg naa dégg naa ko ba ba dégg si ay xoolal ni ñu riimee couleur yi yow couleur yoo xam te ni verte jaune rouge la defuñu si rose defuñu si blanc suñu couleur euh, euh, réew lañ ci def n'est-ce pas. Mm-hmm. ñu koy critiquer ñi naan ko demal jàngi moo gën sa yaay di la ote xaalis ki mës toog te jàng ba élèves yi xëy di tëdd di grève moom mu ngi xëy di jàngi mës toog benn bis te jàngiwul ma yëgal ko waa Sénégal yépp pour ñu doon critiquer Ibou Soulard dégg naa waxam ku ma metti la lim ci wax benn tiktoker laa gis mu tiktok ko wax ci lu rafet man si tiktok yi ma gisagum. waaw foofu tamit laa ñëw. parce que tey jii bu fekkee am na ñeneen ñi nga xamante ne ñoo ngi wax di critiquer. am na ñeneen ñi nga xamante ne également wax neen ci lu rafet. lu rafet di publier waat fa tamit di ko di ko. wallaahi man si ñi ma jot a gis si tiktoker yi ku si wax lu rafet mooy Tony Ndiago maa ngi koy remercier bu baax lu rafet la ci wax wax dëgg yàlla hmm. Tony Ndiago ku neex la. avant loolu far liñ naan tombee waral ay gaaf mu tiktok sama doom wax ci wax ju rafet. Mm-hmm. bi si des mooy man tiktok yàlla xam na ni ay vidéo kan laa si seetaan Tony njaago boobu ak baara zéro stress lay jël sama temps si tiktok. di leen di suivre di leen suivre à part ça youtube kii laa fay xool mag di. Mm-hmm. moom kese moo ma neex aussi ñoom laa fay suivre sénégalais yi dama bëgg ñu xamante ni. lii pour bégal sama doom kese laa ko jële woon ak supporter sama réew wutuma ci xaalis xiifu ma maruma rafet maa ngi koy waxaat soxlawuma fédération bu ma woo soxlawuma état bu ma woo soxlawuma ku ma neexal defuma ko dara ba ma koy def yàlla xam na ni barke Seydina Mohamed bégal sama doom ak supporté sama réew moo ma taxoon a def moo nga def ko. yàlla xam na ka. ci loolu sax dafa mel ni également am na ñaar yeneen ñaari xale comme ay moromam yi nga xamante ne boole nga leen ñëwal leen aussi même toni bi. même toni bi mi ngi nii seen vocal yaay bi may remercier si jour mi ngi nii vocal yaa ngi nii mën naa la ko tegal si même jour bi. Mhm. dafa daa nekk a ñibbi ma naan ko na nga dem ndax xale yi mën ko sol. Mhm. xoolal seen yaay bi mu ko solalee di ma remercier vocal yaa ngi nii si même jour. ok xam naa dañuy ñëw rek jàll ci Mouhamed mi nga xamante ne moom moo doon jël photo ki nga xamante ne mooy Pape Seye mu wax moom lan moo ko ci métti ak euh, naka la jëlee photo yeeg ak tout parce que benn jour mu may woo également di ma expliquer cas bi da nga koy jox micro bi rek bu ko defee moom it mu exprimer wu. Mhm. Pape Malick da wax <laughs> lu la métti. <laughs> <laughs> alors euh, Mouhamed yow yaa doon jël photo yi. Mhm. ban moment naka nga ko jëlee ak yooyu noonu. d'accord bon au yi yàgg naa yàgg naa di. micro bi gaañu teye ko bu baax. micro yàgg naa di photo euh, Pape Malick yàgg naa di photo aussi suñu waa koñ yi. Mhm. parce que ba may démarrer photo yi nii si je me trompe pas le la woon. le 4 sama benn cousine laa njëkk photo noonu te xam nga position bi ba ma leen ko doon defloo dama leen daan wax def leen position tous tasar. Mhm. ndax xam nga da nga daan gis waa tous tasar di fecc di sukk noonu genre yooyu noonu su ma daan wax dama naa leen def leen position tous tasar génne leen seen griffe yi nii. Mhm. ngeen gën a nduru gaynde parce que dafa am benn modification bu ma daan def. parce que damay modifier nii parfois ay photo euh, modifier ko de telle sorte que affaire bi dafay dafay kii daal ça brille. day leeral photo bi. voilà mhm. léegi euh, sama benn cousine laa ko njëkk def defloo mu def position boobu noonu ma photo ko si si lendemain bi. am beneen euh, koo xam ne elle habite dans la maison à côté nii. Mhm. suñu seen dëkkandoo la suñu kër voilà. Mhm. suñu kër ak seen kër ñoo jàkkaarloo nii. mu ñëw encore ni ma aussi naa ko photo ma foto ko ni que na def même position lépp a ngi nii sama téléphone mu def même position ma photo ko léegi Pape Malick si jour match bi dañ ko ñawal yéreem bi maire yëgul ba ma koy photo sa yaay yëgutoon bi dañ ko solal yére noonu dañ ko solal bi noonu rek ma yéegee ko si kaw ni ko Pape dem ba ma ko yéegee si kaw noonu ma photo ko. ba ma ko photo noonu si saa si maire billaahi wallaahi lendemain bi lay soogaan di gis photo yi moom mm-hmm. lendemain bi si boppam lay soogaan di gis photo yi mais toog naa presque deux jours soogaan di publier photo yi lan moo tax nga toog deux jours doog a publier photo yi vu pour final bi la woon moo taxoon nga photo xale bi ak yooyu noonu parce que instant boobu noonu j'avais plus xam nga à tout moment 20 giga connexion laay jënd mm. saa su sama connexion jeexee 20 giga connexion laay jënd te du mat si jours mais instant boobu ça me restait juste ay MB yooyu j'en profitais pour xool yenn statuts yi nii. Mm-hmm. na benn jeu bu may jouer fii pour boobu noonu. tal moon sax instant boobu noonu naan damay kii nii euh, damay publier photo noonu mais après soogaan di publier photo Pape Malick sur mon Instagram. Mm-hmm. sama Instagram amul doole carrément parce que cinq 5000 abonnés kese moo si nekk noonu mais. man toog ba ma publier photo Pape Malick bi toog nañu après trois jours après ma toog ba ay côté une heure du matin noonu am benn booy boo xam ne sama benn coppin la ni instant bi euh, il continue ses études à l'étranger mm-hmm. moo ma envoyé benn vidéo ni ma kii du sa raq bi ma ne ko évidemment que moom la kay si laa dugg di xool vidéo bi sur TikTok c'était Tony njaago nag mu ni vraiment booy bi euh, ku bëgg réew ma ngi nii am na lu mu ko waxee daal. Mm-hmm. voilà mu wax si benn wax bu kuul aussi et je remercie daal. moom une fois que mu wax wax jooju noonu. Mm-hmm. ma toogaat après lendemain bi am ñu ñuy envoyé yeneen image encore. ci ba ma duggee. Mm-hmm. yow lañ ko doon envoyé. voilà man lañ ko envoyé. Mm-hmm. ñu envoyé ma benn image boo xam ne benn capture d'écran la ba ñu ba ma xoolee ci kaw affichage capture d'écran ma gis fii euh, Africa Stars. Africa sur Facebook ba ma duggee ma gis ci euh, kaw kii bi noonu ñu ni. Euh, kooku euh, waa ji nee na loxo yaay ji génn si voilà ma ne mais c'est quoi ça léegi ba mu waxee waa ji nee loxo yaay ji génn si man si même jour bi. Mhm. sama cousine boobu ma njëkkoon photo si foto euh, comme genre naan leen génne leen seen griffe mu envoyé waat ma benn photo wu DJ Kheucha. de d'écran tamit si page Instagram DJ Kheucha ndaxte DJ Kheucha moom moo publié woon photo Pape Malick bi bind si. booy bii de loxo yaay ji génn si des si ay reetaan. kon di joxe saa bu mu ko publier yow gisoo ko ba nuñ lay renvoyé. waatee ko ba nuñ may renvoyé kii parce que DJ Kheucha ndakate moom publier na ko parce que ba ma xoolee DJ Kheucha dama gis publi publication bi il de cela trois jours. te ba ma xoolee euh, publication Buzz Africa 7 euh, Jean dañuy bind si il y de cela douze heures. xam nga ce qui signifie que ni kon kële si DJ Kheucha la gisee kon image bu ñu bindoon bi euh, loxo yaay ji génn si. moom mu bindaat ni waa ji ne loxo yaay ji man j'étais trop très choqué parce que DJ Kheucha Jean moom on le considère comme étant euh, l'animateur du peuple mm -hmm. voilà yow étant considéré comme l'animateur du peuple vraiment il fait honte genre à la nature humaine okay. moom il fait honte à sa ville parce que yow nga ni Saint-Louisien xale bu ndaw. mais di jël xësa tamit est-ce que xamut xàmmeewut xale bi wala mu xam yaay ji fii que yéen ñëpp ay Saint-Louis ngeen. mosuñu xam xamante woo leen. man man man man mën naa wax man fu mu dëkk. Mhm. di jël xësa bokkoon nañu tamit cours du soir. ñaar cours du doon jàng boobu j'étais j'étais un gamin instant maa ngi def si je me trompe pas CP. Mhm. instant boobu mi ngi nekk magum jëmm aussi moom mag magee na ma war na ma magee ay année Cruzwar Ilimane la doon jàngee bu nekk wetu Saint-Louis la nekk mais wetu euh, hôpital Ousmane Ngom. kon daal yow xam nga ko mais peut-être moom moo leen. xàmmee naa ko nii. Mhm. parce que ba mu mhm. foofu noonu la doon jàngee man aussi foofu laa doon jàngee euh, euh, comme moom. Mhm. depuis lors man man leneen lu ma si gën a metti mooy lan. muy lan. publication yi ñu doon defi commentaire naan xaalis moo leen si dugal euh, Jean ñi seen seen waa kër yi amuñu xool ay commentaires yoo xam ne c'était tellement vulgaire vis-à-vis d'un gamin ñoom ñoom dañu waroon xam ne que kii il n'est qu'un gamin il n'a que quatre ans ñu suñu si wax suñu mënul wax lu rafet si euh, booy bi genre ñu ñu téye seen ay lamine quoi en mais c' vrai aussi tey jii ñuy commenté yëpp waxuñu carrément xale bi mais tey jii yëpp commentaire yëpp sa tourne autour de sa mère. yaay ji la ñuy wax yaay ji. yaay ji mais yaay ji yëgul tinul. parce que Pape Malick yàgg naa di publier ay kiiwam euh, ñoom suñuy recherché say MHD sur Instagram. Mhm. dinañ gis euh, beaucoup de comptes yoo xam ne mën naa ay borom. yàgg naa di fa publier ay vidéo Pape Malick nii genre parfois muy dessiné ma koy filmer nii dugal sur Instagram. parfois mhm. ay photos nii ma koy et sur bon nombre d'autres réseaux. tout le temps da nga koy publier tout le temps mm. personne ni n'y avait jamais pu kii critiqué ni ñu wax si quoi que ce soit mais ñoom c'est parce que tombé moo waral ay gaaf loolu la ñuy. wolof di exactement ça aussi. voilà léegi man publier woon naa photo Pape Malick bi deux jours après finale bi ñoom nag xam naa sûrement man instant xaw ma xamoo gumoon sax euh, lu géej gi di réer parce que. mais boobu yow gisoo woon photo ay bi. également bi nga koy publier non parce que man ba ma publier photo Pape Malick bi noonu si laa gis après ay ay am ñu ko jël capture ko noonu. di ko publier waat en même temps yenn kii yu bëri nii euh, d'ailleurs am na beneen kii sax benn page boo xam ni. Mhm. daf ko jël noonu defar ko tableau moom laa war naa ko récupérer sax tey jii. tableau bi fii moom voilà. Mhm. parce que dafa naroon yónnee Saint-Louis foofu noonu ma ni que t'en fais dinañ ko ñëw jël si. voilà léegi euh, na laa koy mën a expliquer sax di xëcca moom su yamoon si comme publication boobu mu def mu neex. Mm-hmm. dafa am leneen lu mu defaat. encore beneen publication bu mu defaat. ci même kii si Pape Malick ou bien. si Pape Malick parce que instant boobu dafa am benn waaye turam laa xamatu xamatul. Bachir xaw ma je sais quoi daal. Bachir lu mu ci wax ah moom it benn la moom dafa dafa nii nee na nee na Pape Malick muy mel ne xaw ma ren seen ngeeñ xaw ma nu mu koy kii bi di yow yow. Mm-hmm. di ko minimiser yow koo xam ne il n'est qu'un gamin nga jàpp ko sur l'internet nii loo xam ne ñëpp koy gis nii. nga jàpp ko di ko minimiser xale bu ndaw. xam nga tamit parfois gars yi dañuy publier tey ji duñ ko la ñuy wax li duñ ko sax gëm mais peut-être dañuy bëgg ay m wala tey jii bëgg di reetaanloo aussi nit ñi. mais quand même soo bëggee nit ki su bëggee ay m et autres. Mm-hmm. s'il te plaît bul jël bul jël sa profil sa boo bëggee profit nii bu ko wutee si xale bu ndaw. soo bëggee profit danga nga koy wutee si koo xam ni genre mag la. il est majeur. Euh, yéen a tolloo âge wala mag la daal. au fait mm-hmm, mm-hmm. il est majeur et vacciné. moom moomu en ce nii daf ko waroon fekk bu fekkee célibataire la waroon na ko fekk mu am jabar am doom dem julli ji juma. di dugg si diine bi daal. mais DJ Kheucha également bu mu publier loolu est-ce que dugg ngeen wala ngeen jéem wut contact am wax ko ne carrément li mu def neexu ko bu ko defee moom itamit vu que nit kese la mu jéem a supprimer publication bi tout jéemoo leen def ay démarches pour jot ko moom. évidemment parce que xam nga moom dafa am à tout moment gars yi suñuy kiiwee commentaire yi. Mhm. commentaire bi lu mu gën a immature. Mhm. dafay dugg répondre ko def si ay reetaanam lu commentaire bi gën a immature dafay dugg répondre. man nag commentaire naa si kii bi j'espère na commentaire. yow lan nga ci commenté. Euh, jusque ni dama ni que Jean euh, Jean xaaral parce que man. parce que su Penda man turam maa ngi koy seetlu bi may dugg di xool commentaire yi à chaque fois dama doon gis ku doon répondre te su ma xoolee tur bi benn tur bi lay doon maa ngi doon wax sax kii kan la doon ci xale yi peut-être ak lii tey laa doog a découvrir également que Penda euh, moom moo nekk yaay ki nga xamante ne mooy mu mooy. waaw yaayu Pape Malick. au fait Bachir acteur 10 la. la mm-hmm. kii léegi Bachir acteur 10 dafa publier benn vidéo nii sur TikTok. Mm-hmm. léegi Kheucha dafa jëlaat vidéo bi dugalaat ko nii sur kii euh, si Instagram am. compte Instagram am bind si. Euh, sër tëtët mu ni lii moo tax euh, mature yi duñ ñu mën a mës a respecté. Mm-hmm. parce que ñun immature yi amuñu benn fulla gis nga moom instant bii nii il dégrade il dégrade genre. sa réputation. parce que mhm. moom la réputation qu'il mhm. instant bi mu ngi koy dégradé si lan. affaire immaturité parce que xam nga dem na benn instant. kii def na benn vidéo boo xam ne c'était tellement immature et tellement sataniste parce que yow kii magum jëm nga nekk di wax si xale loo xam ni xale bu ndaw boo xam ni il n'a que quatre ans nga nekk di yàq si deram loo xam ni même ay <laughs> non billahi j'étais j'étais tellement surpris parce que parce que kii nii man je peux dire que ni moom il est l'incarnation du diable en personne même parce que nga nekk magum jëm sax si kib mhm. di wax si xale loo xam ne. tey jii bu màggee mën na koo gis mu waa après mu def ko leneen également. te xoolal li ma si gën a metti mooy lan sénégalais je je ne dis pas que la plupart des sénégalais mais ces genres de personnes comme ces genres de personnes di jëxëcha et euh, xaw ma. Euh, acteurs xaw ma je sais pas daal Bachir acteur je sais daal ak Ibou ibu Soulard je sais daal ñoom nii genre ñooy ñooy ñoo xam ni euh, nan laa koy mën a expliquer sax que. mais Ibou Soulard moom ku kuy seetaan ay vidéo am xam ne noonu lay euh, dundee moom itamit ay vidéo yi nga xamante ne ay vidéo comédie la moom day ree day reetaanloo Mhm. day def tout peut-être tamit dafa comprendre wala xamutoon bu waxee lii dina yi nii également. non mais xam nga parfois Sénégalais yi dañuy wax yoo xam ne ay mots yu am importance mais duñ ko déglu. Mhm. xam nga am na benn bis am na benn waaye bu publier sur euh, bu waxoon ni gaañ di ko filmé mu wax ni que Sénégal. Mhm. suñu boole woon ñëpp nii di leen baxal ci benn kàddir. jaruñuy ëpp cin jaruñuy ëpp cin tu sais pourquoi parce que nee nañ ku bëgg génn sa moroom lay xëcc. genre bu fekkoon dañu boolee Sénégal yëpp di leen baxal si euh, cin ni genre xëcca beeg Bachir et autres nii ñoom ñoo leen di xëccaat si biir cin lii ñu dugg parce que bëgguñu comme xëcca. Mhm. man dama koy euh, genre dama koy lancer benn message nii moom xëcca étant genre koo xam ne moom la ñëpp di suivre nii. Mhm. moom il se dit que bu muy bu mu yaakaar ne que l' influence qu'il a sur Instagram. Euh, qu'il se doit tout permis moom daf bu mu yaakaar ni que tout tout lui est permis daal. parce que bu mu am ay abonnés yu bëri nii sur Instagram. Mm-hmm. mu jàpp photo jàmbur yi nii di ko publier nu mu ko neexee di si wax lu ko neex alors que lenn wóoru ko si parce que kii xale bu ndaw la. Mm-hmm. mu nekk fii nii naan loxo yaay ji génn si ewootul ñeneen ñeneen ak ñeneen nekk foofu naan ay gens xaw ma seen kii ñoo amul xaalis seen parents ñoo amul xaalis man dès le bas âge jusqu'à maintenant. que may am sama baccalauréat lépp privé laa ko jàngi mhm. je de cela parce que maa ngi nii parfois billahi wallahi damay soxla xaalis d'urgence nii dem ni sama papa ni ko dama soxla xaalis mun ma xaaral ma jóg le temps may xaar muy jóg yu noonu dafay am kuy ñëw tak salaamaaleykum ana tonton Ousseynou ma ni ko duggal mi ngi si saal bi dafay dugg génn su ma duggaatee nar a laaj sama xaalis bi dafa naan ma bàyyi ba suba mhm. te ba tey du ma wax lan la def xaalis boobu noonu mu kii woon léegi yow si sa bopp yow dinga xam automatiquement que keneen dafa ñëwoon genre am na lu mu manqué la nii mu dimbalee ko si noonu ak ñeneen ak ñeneen sans papa billaahi wallaahi am na yu bari yoo xam ni euh, ça reste entre man ak moom yoo xam ne dafa koy def nii sama meer sax du yëg billaahi wallaahi ñun xaalis yëngaluñu pour ñu nekk fi naa ay xaw ma xaalis moo ñu tiital dañu bëgg si xaalis bi et soxlawuñu xaalis kii que ce ñun xaalis ñun ñoo koy joxe. fële à saint ku ñëw ak les moo gën a siiw kër monsieur le maire. Hmm. billaahi wallaahi. ak yeneen ak yeneen. message bi leer na Mouhamed. <laughs> je pense moom war na xam kii moom ak les war na ko xam gis nga dafa am ñoo xam ne ñu bëri ñoo xam ne. Euh, maintenant ils sont des hommes de gens ay kii lañu daal ay nit yu haut lañu si réew mi. <laughs> ok wallaahi azim dès le bas âge ils sama ñoom parents yi ñoo leen ñoo leen jubbanti jusqu'à que ñu nekk en ce moment nii dans des dans des daal. Mm-hmm. parce que da parfois da ngay gis ni am ku ñëw di defarlu otoom nii naan sama papa ba xam xàmmee nga ma sama papa dafa naan ko xàmmee wala mun naa gis na la tëjoon nga ma nekk xale. Mm-hmm. te loolu moo leen di may jom et autre. na le koñ foofu noonu ku fa mës si fois que ñu andi la sama pap wala ñun la atelier seex lañ la yóbbu suba bu yeb. suba soos noonu avant muy jot di nga yaru ba di nga yaru di de telle sorte que dañ naan la dañ la yóbbaale atelier pour nga réewaat. centre de correction la woon en quelque sorte. Hmm, d' accord c' est bien <laughs> merci beaucoup Mohamed am message bi leer na je pense que buñ la déggee également dineen xam carrément lu ñu def aneexu ah, leen. Penda dama lay bàyyi rek nga wax lancer sa message wax carrément également lan nga bëgg lu comme gannaaw wax nga li la métti sax dama lay bàyyi rek nga lancer message euh, joxe également sa kàddu gu mujj. sama kàddu gu mujj daal mooy. xëcaa hmm. man daf maa bett. parce que xëcaa moom yàlla xam na ko rosloo kii xëmloo na ay rosi sama kër ba taay. sama sœur bi ma nekkal. Hmm. day togg añ. rosi tamaate ja ñëw di seetaan di ja xëcaa ba rosi ba xam ma tuur ka jëndiwaat tamaate booleeg ay sama ay xultu. Hmm. Pape Malick mii pourtant muy critiqué. crayon crayon bu ñu taay ba mu ñëw dugg na ci bëtam 15 jours ñu koy faj à cause de kan xëcaa. nee ma lu tax. lu tax lu waral loolu. dafa wàcc. Mhm. di lay wàcc. xam nga du jeexalagum émission di zappe télé ba. Mhm. te télé ba si digg kër ga moom moo ko moom moom laa ko jëndal. parce que da doon xëcc ak papaam télé bi saal bi di seetaan mi ka papaam naan ko match laay seetaan wala lii. Mhm. papaam di ko si dóor ma jënd sama tele cent soixante quinze mille tegal ko ci digg kër gi. pour moom kese pour moom kese. léegi mu wàcc sama sœur bi jàpp di ja xëcaa mu ni ko pas mal dimbali ma rek dimbali ma léegi mu jeex sarax ma rek kii di jooy bañ fekk mu ngi yore crayon bu ñu taay. Mhm. muy xëccoog moom commande bi kii jël crayon ba ni ko dagaj ci bëtam. ma ni ko léegi fan yooyu ma léegi sama bëtu doom bu tuur woon ndax di jëxëcaa te di jëxëcaa xamuma xamuma. xamante boole. ma am fu ma ko tegoon lool nag waaye domage tey bu bu doon kilo si sama biir xol xaaju genn waa liibar la fa pesé tey dëgg la nag nee nañ bëgg du ma sa bañ. Mhm. mais peut-être xëy na dama koo mere. xëy na dafa dafa juum moom it. mi ngi noonu kii di Ibou Soulard nag moom xaw ma ko xamaan ma ko man duma sax seetaan ay vidéo am dama koy paase. su ma gisee mikke bi noonu muy def noonu di kii dama koy paase benn sama doomu mag bu nekk Louga moo def capture d'écran envoyé ko sama sœur bi def flèche Pape Malick ma ni ko kii kan la mu ni ma ak ah, kii moom aka euh, envoyé Fatou Kiné ma ni ko lu mu si wax nii mu ni ma kii kii la Ibou Soulard mooy mikke boobu di saboote. Mhm. ma dugg dékk mu si wax wax yooyu naan xale bii de waxuma la dara ak caayaam jii ñu ko ñawal. prep ñu bàyyi ba suba la match bi jëndali ko tiis yaayam xam naa daa bànkoon bëgg xaalis aj ko si kaw terrasse ba forcé ko ni ko yuuxul yuuxoom bii de xam naa ni mbaab kuusoon ngeen ka xam naa ni dina yàq tuba ji xoola kii ñu ngi complexé loo sama doom sax ba bu ëllëgee sax du nangu supporté parce que loolu ba mu ko déggal mooy yaay bu ma solal caaya balaa kii naan damaa ko dafa bañ bi après. ah da koo bañ nee na bu ma ko salati ndax kooku moo ni ko dangaa puub si caay ji kon moom dégg na loolu noonu. dégg na ka mu metti ka kii aussi naan ka xale bi mel na ku naan kii moom doon naan xale bi mel na ku naan reeñu senjeñ mm-hmm. lii yuuxu muus la du yuuxu gaynde barke Mouhamed ba ma koy déglu moom mu ñëw sëgg sax dama wàññi son bi bañ mu dégg ka di si complexe kon déjà dugal nañu complexe sama doom te defuma woon lu dul bëggal sama doom supporter sama mm-hmm. pays comme tous les Sénégalais comme tous les Sénégalais nin koy defee mm-hmm. kii gis nga caay boobu ma ka ñawal ak yére même même modèle laa ko ñawal finalu Santos mi ngi nii vidéo yaa ngi nii après naa ko woon sama téléphone. Mhm. gis nga sénégalais nanu wàññi wax ak dégg teel rek ne damm na gis dara rek ñoom ñëpp intéressé wu si wax lu leen wóorul. Mhm. te dara leeru leen xamuñu ma xamuma leen man sama jëkkër mooy yàlla xam am na yoo xam ne sax duma ko wax sama vie privée la comme noonu ñu naan dafa ay waajuram dañu bëgg si millions yeeg dañu bëgg si nangami. Mhm. ku xam atelier seex yi gis ma may wax dina xam ne man papay xale bi ak yaayu xale bi namuñu daray xaalis moo tax gis nga Sénégal yi ku mel ne ñetti aadamoo moo baaxoon si ñoom <laughs> wallaahi dama koo bëgg yii dama koo bëgg ku mel ne ñett si moom ño si aadamoo euh, mm. ku mel ne ñettam bu amoon Sénégal ak ñetti Queen Biz ñu réglé parce que xoolal sama commentaire bi may tontu ñu ngi naan ma yow xanaa sœur Queen Biz nga waaw gis nga ko da doon topp commentaire yi man tey a xam ne yow am na ku ma envoyé xanaa sœur Queen Biz nga. comprendre mhm. am na koo xamante ni Facebook la jóge ma gis TikTok am kenn ku kii publier mu ni ko ay yaayu xale bi bu la fekkee kii de yaayam xuloo rek lay def démb am def na lu ne Facebook ma daal di ko fay fekk ni ko yow da nettali rek ngay def yow mi jóge Facebook ñëw TikTok di nettali am na ñoo xam doo leen sax topp. Mhm. Tony Ndiago nag maa koy remercier kii di Tony Ndiago ak euh, Baara zéro stress man ñooñ kese laay déglu ak mag di mm. dama koy waxaat. Sénégal nag ku mel ne ñetti aadamoo ñoo baaxoon ci moom <laughs> ñoom. c'est vrai que sénégalais nag tey ji da def lu baax ñu wax nga def lu bon ñu wax. voilà kenn mënu téye seen gémmiñ yi. Mm-hmm. mais yow yaay xam rek fan nga war a mën a yem ak ñoom def li ngay def a bàyyi leen euh, ci biir. mi ngi noonu alors la internet wu Dakar maa ngi leen di santaat di leen gërëm yéen ñëpp waa Dakar Buzz. Mm-hmm. di la jaajëfal. yow Dieynaba mm-hmm. ndaxte depuis lors comme ma la waxee sama naqar ba léegi comme ni ma la ka waxee woon da nga ñoo teg ñu si yoon bañ agsi mm-hmm. xam nga ni ku daw ay kilomètres Saint-Louis. Ah, Dakar ba Dakar moom du am nga lu la yëngal. Mm-hmm. ba ma jour ba ma gisee publication Ibou Soulaar laa xola laa fipp. dafa fekk may bàcci rek kii wiccax sama loxo si si si si bi. jël sama téléphone contacté la daan kii ni ma. am na ko ma lii yii yëpp jaru ko si ma ni ko ah kay parce que weddi dindi tuuma la xëy na nag dina am ñu gëm dina am ñu gëmul parce que Sénégal fii moom boo liñ naan dañoo gëm euh, yàlla gëm yàlla yëpp bu yàlla taxawoon sax ñu critiqué ka di nga gis ku ni que sama bakkan bi fii nga ko def pourtant boo ko defoon fii lay gën a rafet jikkoy sénégalais la waaye man dinaa leen dinaa ñëw wax li ma xam bu ñu gëmee xayrun bu ñu gëmul xayrun kii ba ma koy def yàlla xam na ni ñoom bañ naan ay safaade lay toppandoo ay safaade ma gis yi Mouhamed laa ni kuy ay safaade moom si boppam ni ma sûrement benn xale de la bu def comme je daan ni ma moom ñoom sax nuroowul ni ñu def mm-hmm. di ma ko wan xoola après si la sama sœur bi dugg si ki ma naan la dafa xamal samay rosi ba tàyyi ndax dijjee xëcca daan ni ma xaaral duggal ci kii bi di jaxasaa invité woon na ka si xool silaay doog a xam kii mooy ay Fary ay Fary li mu am wërsëgam la. Mm. yàlla na nekk muuram ak wërsëgam mu jëkk ka mm-hmm. jëkk ay parents wa te moom moom sax bàyyiwuñ ko dañ ko doon critiqué ba ma xoolee ay commentaire bawuñu kenn mm-hmm. xale bi doon kii rek yuuxu noonu te xale xale bu tuuti la naan damaa yërëm Égypte xale bu ndaw la kooku lan la xam mm. teewul ñu koy critiqué di ko wax wax ñu ñaaw ba maa ngi si TikTok benn daam comme man nii rek génn di ko défendre naan xale bi xale kese la gis naa seen commentaire yi ngeen koy saaga nga naan ko yaa eñaan ak loolu te kooku xol yërmaande doo nga ko jàpp dafa wax ak xolam kese def lu mu xam kii tamit lu mu xam ñeenti at ma ñawal sama doom jox ko ni ko supporter ñu lii yëpp mbamb mii yëpp am ci te ba ma koy ñawal yàlla xam na ne xaw ma ne woon dina agsi fii léegi nag maa ngi jéggalu mhm. tamit si ñu si wax lu baax yépp maa ngi leen di jéggal ku si wax safaan wa nag ma yàlla àtteeg yow bàyyi naa la ak yàlla te man xam naa li ma si jublu woon bi may ñawal sama doom maa ngi leen di gërëm di leen sant. d'accord jërëjëf alors Mouhamed ma bàyyi tàggatoo ak euh, internetu Dakar bon man moom. micro man moom euh, tout est impeccable daal comme que ñëw na ba ak si fii nii rek si loxoy jaay na ba. Mhm. man je me dis que ni ça va maintenant alhamdulilah xam yokk yenn affaire tamit. Mm-hmm. xam nga ñi ngi naan euh, nañu yóbbu xaw ma kii mu jàngi. Mm-hmm. et pourtant mi ngi nii moyenne section la nekk de mais vraiment euh, ce qu'il fait à l'école bon nombre d'entre ses camarades ne peuvent pas le faire. parce qu'il maîtrise bien l'hymne national et autres. te xoola xale bu ndaw 4 ans nga maitriser hymne national ba mu nekk ba mu nekkee xale ay 1 an ay 1 an mois yooyu la am. lu commencé yore ay téléphone jusqu'à dafa bëgg. ay <laughs> téléphone ak yooyu parce que hmm. dañ koy jox téléphone nii dafay taal connexion tàppe kii bu ko neex nii di seetaan lu ko neex aussi. Hmm. xam nga lool c'est pas donné à tout le monde macha nag du ma si catu nii. Hmm. dama bëgg rek que ñu wàññi critiques yi et te suñu critiquer nañu dem laajte ay renseignements jusqu'à ce que ay renseignements pour ñu soogaan critiquer quoi que ce parce que bu ñu xëyee rek di critiquer koo xam ni xamoo fu mu jóge xamoo yow kooku lu ko yàlla may et autres mm. man seen lu sax quoi billahi wallahi noonu problème ñoo ngi Sénégal moo mel noonu ko xam Sénégal xam ne euh, dëkk bi nga xamante ne ku nekk day wax ak lu ma mënta gis rek day wax euh, tey jii dem neen ba wax ne sénégalais day wax ba pare doog a dem gëstu ji alors lii mooy euh, Sénégal am internetu Dakar Buzz tey jii nii maa ngi amoon ki nga xamante ne mooy waajuru kii nga xam ne mooy Pape Malick Seye doon xale bu soloon yére bu rafet am ay nataal yu rafet sax ñu publier ko ci méttoon kii nga xamante ne mooy waajuram bu jigéen ak magam bu góor ba tax na nag tey ñu toogoon fii di leeral mbir mi ma leen di jaajëfal bu baax a baax di remercier sama caméraman bi nga xamante ne mooy Jibi mais également di remercier omax mi nga xamante ne bokk na ci équipe technique bi di leen jox digg daje beneen yoon incha allah jërë ngeen jëf